ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sant sunuy waayjur di sant borom Ndiassane Cheikh bu Mohamed Kunta di nuyu bu baax nag di ziar xalifa bi di Cheikh Albekaay Albekaay ibnu Cheikh Albekaay ibnu Cheikh bu Mohamed Kunta ibnu Cheikh Albunaama yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te wéral ko wéral njabootam yépp di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi nuyu nag di ziar bu baax nak sunu papa euh, sunu serigne di Cheikh Daoud ñu ni ci wétam ci kërëm khalif nuyu diko ziar bu baax nak mu nekkal représentant Khalif général di khadriya fi ci arrondissement di ñaay ma tok ci wétam nak di nuyu nak di ziar talibi union bi nga xam ne tey yàlla dogal na ma nekk président union général Khadriel Kounti bi nga xam ne dañ ko sos fii ci arrondissement di Niayes mu jàpp li ëmb arrondissement di Niayes yëpp di commencé Kër Massar Malika Diamaguène Sicap Mbao Fass Mbao Thiaroye lépp rek aju ci secteur bi ñu nekk nga xam ne tey ñoo bokk ci union bi ci seen tour laa fi ñëwee ci wetu cheikh bi di suñ papa euh, di wax rek tuuti rek ci li ñu dëgmal nag euh, muy gàmmuwaat bi nga xam ne tey jii euh, sunu sëriñ di bàyyi bu moo ñu ko waxoon ci turu nag ki nga xam ne moo ko fi nekkal tey di xalifaam di ji cheikh ci di maxtaar kunta nga xam ne mooy taawu cheikh bu Mohamed kunta yàlla na ko fi yàggal lool te wéral ko gàmmuwaat muy loo xam ne cheikh bi dina ci ñëw dañ ko ciy ubbil tuuti rek euh, sëriñ bi ci mujj gàmmam dafa bokkoon ci li mu ñaanoon ndax fuñ ñëwee di ko tàggu pour dem mu ne dangeen di gàmmuwaat rawatina ñi nga xam ne dañu jóge woon Mali Burkina ay Côte d'Ivoire taalib yooyu nga xam ne dañ daan daf fu gàmmu passé ñu ñëw ziar ko tàggu ko mu ñaanal leen biñ ñëwee di ko ñaan si di ko ziar si dana leen toog leen ndax da ngeen di gàmmuwaat euh, ñu toog fukki fan ak ñaar sëriñ bi génn àdduna ñu defaat ko gàmm looloo indi gàmmuwaat bi euh, ñu koy woote nag di ci profité ci occasion di ci woo taalibe yi waaye di ci woo yit képp koo xam ne rek yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah ñu ngi la ciy woo ndax it ki nga xam ne mooy cheikh bu Mamed Kunta di waaye juram nga xam ne dafa ñëw ci lu bëri ci ni waay juróom ñëwee woon dafa am baat bum ñu bàyyee woon daf ne woon muridana kum abidan munasikan mutamsikan bi abdillahi ilbaani falaatu mayisan walaatu fariqan ibada rabbil xalqi wal akwaani fa kullu man xaala laa ilaha illa allah fakkun aw nan bila tisaani kooku mooy cheikh bu Maamir Kunta ñu toog nag ci wetu cheikham ci wetu doomam mu defoon ko nag doomu boppam muy bàyyi bu waxoon cheikh Daawudu Sidibe doo taalu bi sama doomu xol nga ci wetam lañu ñëw toog ci kanamam doon ko ubbil rek su ko defee ñu bàyyi ko moom mu àggale waxtaan bi ñu ngi nuyuwaat ñëpp nag di ziar ñëpp di woon ak bépp bi rek ci gàmmuwaat boobu ñu dëgg mën muy la 5 novembre incha allah muy àjjuma bii di ñëw ca Ndiassane wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf Baye Bou jërëjëf Baye Bou dama yàgg di wax ne euh, doomu aadama yi yiy dox yépp ñëpp seen xol yi bàyyi boo ci nekk fi mu nekk nii euh, di wax nag ci turu ki nga xam ne tey moo ko fi toogal di xalifaam gannaaw bu mu nuyoo xalif général day xaadir Cheikh Al Becaye ko fi yàggal te wéral ko ci ay barke maamam ak ay barke baayam di ñëw nag ci El Hadj Cheikh Sidi Mokhtar Kounta di xalifa Baye Buur moom ci boppam mu ngi woo taalibe yépp dafa am benn message boo xam ne war na ko délivrer vendredi bi bii di ñëw di la cinq incha allah ci cérémonie officielle bi am na benn message bu war a délivrer taalibe yi mu nekk seen ndigal seen seen seen xéewal loo xamante ne baayam moo ko feeñu wax ko kon nag lii moom na ci taalibe yépp fagaru fexe ba ñëw ci bés boobu même bu amul sax message bu mu délivré taalibe yi dañu xam ne tey képp ku fi nekk cheikh rek képp koo xamante ne ci jamono jii ba ci jamono baay bu nekk nga cheikh rek baay bi moom moo la cheikhal kon nag ku doon raam di ñëw wala ngay dox di ñëw sax ba bii nga xamante ne dafa leer nañ waaw dafa leer nañ te yàgg naa ko wax man na leen bi rasulullahi sax bi yàlla organisé àddina ba noppi daf ko teg ci loxo rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi yonente bi bi mu àddina ba noppi daf ko teg ci loxo Cheikh Bou Kounta borom Ndiassane Cheikh Bou Kounta bi mu organisé Ndiassane ba teg ko organisé àddina bi daf ko teg ci loxo Baye Bou kon nag Baye Bou moo nekk ci xol doomu aadama yi Baye Bou ba léegi mooy doxal Ndiassane loolu kenn mënu ko dindi waaw nag alaaji si maxtaar moo ñu jox ndigal ne nañu woote na taalibe yëpp ñëw na taalibe yëpp ñëw na taalibe yëpp ñëw kuy dox ku mën a dox na nga dox ñëw ku mën a raam tam na nga raam ñëw waaw dañuy wax ne illaa Njaasaan bii nag dafa nekk boo xam ne dafa nekk xéewal maa ngi koy bamtu di ko bamtuwaat mooy bi alaaji si maxtaar war a wax taalibe yi moo xam nag sax ci cérémonie fi la wala moo xam bu génnee fajar la koy wax mais daal am na loo xam ne war na ko war na ko wax taalibe yi taalibe Njaasaan yi te buñ si ngooyee rek yàlla dana faj aajo yëpp ci barke Baye Bou man nag ñëpp xam nañ ma ci Baye Bou du ma ko weccox lenn lenn laa ko dul weccox fu te fu nekk nag dama koy wax dama ne leen même yomal xiyaam su ma gisul Baye Bou sax man bu yóbboo na mu yóbbu feneen waaye nag lu mu amul yomal xiyaam bëgguma kon nag bàyyi bu rekk fi nekk kon doomam ji tey mooy Alaaji Sidi Moxtaar ñu ngi koy ñaanal wér dal ko yàlla wéral dal ko yàlla yàggal ci xilaafa baayam ba mu jëriñ taaliba yépp ci barke baayam bés bi nag vendredi la le 5 novembre 2021 li taaliba yépp ni ko maam bu Njaay waxee muy président union bi la mu ci wax ci union bi ñëpp dégg nañ ko kon nag damaa bëgg union bi yëpp def seen mobilisation incha allah avant midi yéen ñëpp ngeen fekk ma Ndiassane ñu ànd ñun ñëpp dem ziare ji Alaaji Sidi Muxtaar loolu rek la amoon luñ si luñ si luñ siy dolli di ñaan rek borom bi subhaanahu wa yàlla na ñu nangul euh, jàmmuwaat bi ñu fekk ko ci jàmm. te ñun ñëpp ñafay ñëw ñëpp tal ko ñëpp seen aajo fajo ci barki allahumma salli ala sayyidina muhammadin saabixun lil xalqi nuruhu wa rahmatu lil alamina zuhuruhu salaamaaleykum wa rahmatullah kulla réegi bay bu dem naa Aji Ahmed ak Buna Sidi Abdallah Sidi Yaxya